gaawaan ca kanam di kuréel gu ñu sos ci atum 2020 bi ngir taxawu dëkk bi nga xam ne moo di gaawaan ci mbooleem infrastructure ak saafara ay jafe-jafe yi nga xam ne dëkk bi am na ko ginnaaw kuréel gi bi mu amee at ñu amal seen assemblée général ngir natt liggéey bi fu mu toll ak liñ ci jot a def. waa gaawaan ca kanam bu ñu waa gaawaan kanam muy kuréel gi nga xam ne euh, waxtu yi daaw lañ ko sosoon ci ndigal euh, sunu kilifa euh, yàlla def. mu am at boobaak léegi ñu wootewaat bisub tey bii ngir euh, woote bi nga xam ne defoon nañ ko daaw euh, ngir wax nit ñi liñ bëgg ak fiñ jëm yàlla def ñu ñu ñu ñu dem fukki weer ak ñaar kon jaadu na bu matee ñu woowaat nit ñi bañ ñëw ñu ni leen ah ndigal liñ laajoon woo leen ci ab liggéey liggéey bi kat fii la toll lii ak lii ak lii lañ ca def ci diiru fukki weer yi ak ñaar gaawaan ci kanam jot na ci dajale ay koppar yu takku lépp bàyyeekoo ci mille francs yi nga xam ne membre yi moom lañuy ñuy weer wu nekk ak jaayante yi nga xam ne jot nañ ko dajale. ñu commencé mois d'août ba mois de juillet nekk fukki weer ak ñaar benn bu ci nekk rek xam nañ weer bu ci nekk li fi dugg ci ay reçu 1000 francs août 551 150 moo dugg ci gaawaan ci kanam septembre 928 440 francs. octobre 660 000 francs novembre décembre moom lañ boole mu nekk 296 000 francs janvier 172 200 francs février 330 000 francs mars 157 000 francs avril 102 000 francs mai 54 000 francs 4 juin 99 500 francs juillet bi ñu nekk 71 500 francs montant reçu mille francs yi toll ci 3 millions 421 790 francs bu ñu xoolee li nga xamante ni mooy jaayante yi jaayante yi mu doon def ci groupe bi te ko doon jàllale mi ngi toll ci 1 million 365 mille 500 francs jaayante Dakar Massalik bi mu ngi toll ci 1 million 1300 francs jaayante yi ci ñëwaat ci diggante bi toll ci 65 mille francs montant jaayante yi mi ngi toll ci 2 millions 431 mille 800 francs kon bu ñu boolee ñaari xaalis yooyu muy reçu 1000 francs yi ak jaayante yi. day toll ci at mi gaawoon ci kanam liggéey 5 millions 853 mille 590 francs. am na ay réalisation yu takku yoo xam ne gaawaan ci kanam jot na ko def ci atum 2020 2021 bi mu jëm ci wàllum santé sociale ak religion. bu dee li jëm ci wàllu dépense yi dépense yi ci gën a mag mën nañ ko lim mooy li jëm ci wàllu poste de santé bi te ngeen gis ko nii suñu kanam valeur bi mi ngi toll ci million millions 680 mille francs. am na tamit ay détails waaye comme temps bi duñu ko may ku xoom ku xool feuille bi rek di nga gis détails li commencé table de consultation ba par lépp détaillé nañ ko mu ngi ci biir. ambulance bee ngeen seen comme noonu ko sëñ Mbàkke leerale rek toog na ab diir tombé en panne waaye gaawante kanam dafa génn cent 840 mille francs def ko ci ba mi dawaat nii détails yi tamit gis ngeen ko mi ngi nii ci feuille bi. li ci topp mooy rajo jumaa ji ku ne xam na ne boo fa daan jullee. sëriñ bi li mu daan xutba dañ daan am jafe-jafe pour déglu ko daanaka liñ daan enregistré di ko dugg ci groupe whatsapp yi liñ ci daan déglu sax ñu ñi nekk jumaa ji duñ ko déglu bi lu yàlla dogalee loolu waa Gaawante kanam jaayante 515 500 francs pour yeesalaat rajo yooyu détails yi tamit mi ngi nii leer na naan ci feuille mois d' octobre tamit Gaawante kanam jàppale na ñetti famille yoo xamante ni amoon nañ jafe-jafe ci jot ndox ci gaawaan benn famille bi 41 500 francs lañ def ñu am beneen kër gi 62 600 francs lañ fa def ñu am ndox beneen bi mille 500 francs ñu am ndox ak main d'œuvre bi lépp mi ngi toll ci 179 600 francs yeneen yi ci nekk ay détails la lu mel ni sérigraphe darab yi ngeen seen ci kaw 20 000 francs blouse yi nga xam ngeen ngeen gis noonu 20 000 francs lépp di 40 000 francs li ci des ordinateur bii ngeen fii mais bii ngeen gis tamit mooy ordinateur secrétariat nekk 165 000 francs yeneen yëpp ay détails communication la jëm ci vidéo Baye Diagal yi ak RFM gox bi FM ak siège yi dam woon bi biñ biñ defee assemblée générale bi ak blog reçu yi ñi moom ñii waa table bee di jaay ak carte membre yi cachet yi ak bloc reçu yu ñu dolliwaat lépp boo boo xoolee ci feuille bi dina leer nañ kon dépense yi au total boo xoolee ci suuf dañuy da nga koy gis mu ne 4 millions neuf cent quarante cinq mille cent francs kon li dugg lépp ci compte Gaawante Kanam ci armée mi ngi toll ci cinq millions huit cent mille cinq cent quatre vingt ñu dépensé ci quatre millions neuf cent quarante cinq mille cent francs kon jamono ji nga xamante ni ci leen toll lii fi nekk ci keesu Gaawante Kanam mi ngi toll ci neuf cent huit mille quatre cent quatre francs 908 490 francs. infirmière chef de poste de santé bu gaawaan bëgg na lool ci jëf ji nga xam ne defal nañ leen ko te ko ci gaawaan ca kanam muy matériel médical bi nga xam ne jëndal nañ leen ko ak équipé saal yi nga xam ne moom lañ tabax ci poste de santé bi. ñu naan mbooloo mooy doole yéen gëm ngeen ne mbooloo mooy doole aso association gaawaan ci kanam ñoom wane nañ ne seen dëkk daf leen ñor ñu ngi koy jëfe te ñu ngi koy wane looloo waral lii wante ñaareel bi mooy. li président américain bi doon wax naan bul xool li la état mënal waaye yow lan nga mënal état te loolu tamit jàppaat naa ne yéen association Gawane ca kanam yéen a koy doxal gëm gën ko te yéen koy wane moo nekk nii. ginnaaw gi loolu ñun dinañ leen gëm dinañ leen dëggalal ne matériel bi dañ ko jël dinañ ko téye te danañ ko sàmm comme suñu moomeel comme alal boo xamante ne ñu ñoo ko moom. ba génération future yi nga xamante ne dinañ ñëw fii bu ñu fi jógee danañ ko fekk ci état. mbooleem kilifa yi nga xam ne teewe woon nañ assemblée générale bi sant nañ bu baax a baax bég lool ci doxinu gaawaan ca kanam ak mbooleem li nga xam ne jot nañ ko réaliser ci fukki weer ak ñaar yi nga xam ne moom lañ jot amagum te ni ñuy doxee bu ñu ko bàyyiwul lépp lu ñu bëgg ci dëkk bii di gaawaan mën nañu koo def noonu noonu noonu booloo nekk benn te bañ a teqali ko def ngeen ko gis ngeen njëriñ li leer na leen ba ngeen defagul lii kenn ci dëkk bi musta mën a def lu tolle lii ci dëkk bi bu ngeen dajalee nag seeni ñaar téeméer ñaar téeméer gis ngeen lim jur kon nag jërëtu leen a soññi ndax def ngeen gis ngeen aaya la boo xam ne suñ borom béralu ko kenn ñëpp même ñu dul ay jullit gis nga américains yi nga dégg nañu aaya bi boole seen juróom fukki état mu nekk benn état ñoo mën ci àdduna bi lu leen neex lañu def ci àdduna bi loolu nag mooy bind bi nga xam ne moom lañu war a jàng te ñi ñu gën a soxla ñu gën a dégg aaya boobu mooy yéen ndaw ñi parce que ndaw moom la diina soxla moom la àdduna soxla kon nag yëf yaa ngi noonu leer na nañ nan boole suñ bopp te fas yéene suñ gox ñu yóbbu ko ca kanam fi ko fekk nañ fexe ba jële ko fi yóbbu ko fi kanam bis bi bëgg nañ ci lool ni ko sëñ Mbacke Anta bu suñ tànk waxee xeetu jaamu yàlla boo boo xam ni ku xamoon fa mu toll waxuma ñaar téeméer da ci waaye da joxe junni kon nag yàlla leen ko suñu moroom yombalal yóbbu leen fu ngeen ko bëgg a yàggee waaye rek bu mu yem rek ci bu da gaawaan gaawaan sëñ gaawaan ko moom te suñ gaawaan dafa am njaboot nañ ko yaatal ci njabootu suñ gaawaan buñ ko defee fu ñu bëgg a egg danañ fa nekk te dana yomb gaawaan ca kanam am na ay projet yu bari yoo xam ne moom la bëgg a ci atum 2021 2022 bi muy ci fànn yu bëri te wuute lépp mu fas yéene ko ànd ak mboolem taalibe yi rawatina membre yi nga xam ne ñoo bokk ci gaawaan ca kanam te bëgga a liggéeyal maam Cheikh Anta ci dëkkam bile